साल पूरा di nuyu bu baax di leen ziar di leen ndokkeel di leen tatagal di leen jox seen wàccuwaay di wax na tey dañu ñëw fii Tëngéej ndax xalif général des xaadar moo fi ñëw seet si waa Tëngéej di sëtu yonent bi ñëw def deux jours ci jumaay Cheikh Samsou Bou jóge fa ñëw fii ci këri ci ci jumaay ci jumaay këri kaw gi kii ma toogal nag mooy Cheikh Ibrahima Mboup di rakk ci Cheikh Samsou Mboup mi nga xam ne moo initié jumaa ji nekk Fass ngan gi bi ñu ñuy démarré chérif yi bi ñu ñëwee mu def plus de 10 millions ci frais tabax jumaa joo xam ne dem na presque plus de 1 léegi nag moom laay laale laay laa leen di paas mu wax leen tey ji bis bi ni mu demee ak lépp loo xam ne def na ko ci jumaay Cheikh Samsu ji ak chérif yi ni ñu may àndeex ñoom ba fii diine yi ak kilifa aada yi nuyoo bi nga xam ne mooy nuyoo islam mooy asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh may nuyoo xalifa général de xaadiriya di cheikh na cheikh Saad Bou Mohamed Taqiyullahi di doomi cheikh al xalifa di doomi cheikh na cheikh Saad Bou ak mbooleem njabootu cheikh na cheikh Saadu bu yëpp da tàmbale ci cheikh al Khalifa cheikh Sidaat Kabir cheikh Taalib bi cheikh Mahfou cheikh Atxaana cheikh Adrami cheikh Bunyana di jël nuyoo boobu di ko teg ci loxol cheikh Atxaana mu al fondation mu teg ko ci seeni loxo di nuyu président de la république Macky Sall ak son gouvernement du premier ministre Amadou Ba ak son gouvernement di jël nuyoo boobu di ko ci teg ci loxol monsieur le préfet de Rufisque mu teg ko ci loxol ministre de l'intérieur mu joxal ko président de la République di nuyu monsieur le maire central ak le maire de l'est de l'ouest et du nord à Rufisque di jël nuyoo yooyu yëpp ko ci loxol monsieur le maire central monsieur Sarr di nuyu nag mboolem jullit yi mag ak ndaw ak ayima yi rawante ki nga xam ne mooy imam pour raatib bu jumaa ji nga xam ne mooy jumaay këri kaw di Alaaji Géey yàlla yàlla yokk fanam ci di nuyu ki nga xam ni mooy kilifa daayira bi nga xam ne moo yàgg di Cheikh Paate Njaay bu yób mu jotaleel ma ko mboolem penc yi nga xam ne mooy ji di nuyu mboolem julli yi nag mag jigéen loolu mooy nuyoo bismillah waaw ah, ñu ne la euh, tey ngi nga def teeru teeru suñu yonent bi nga def frais de 10 millions ci xaalis ngeen defar jumaa ju toll ci 1 milliard tey autorité yi tënkee ji ak autorité gouvernement bi ndax jàppale nañ la tey. waaw xam nga ku yonent bi gane war ngaa def lu ne ndax bu duloon yonent bi kon yàlla du bind kenn. yàlla bi na lee bind doomu aadama yi la bind yonent bi sallallahu nu mu bind kooku bu doomam dikkee gane la la boo mën na am weer bi sax di nga ko jox waaye nag eh, li nu def ñi naw nañ ko waaye nun xeeb nañu ko ndax yonent bi ëpp na loolu moo tax ñu def ko jumaa ji nag mooy néegub yàlla ci kaw suuf yàlla def nii inna al masajidi lillahi wala tadu ma la ahada jumaa yi ak jàkka yi mooy néegub yàlla yàlla nee na bul ma boo kenn bul woo kenn boole ko man loolu moo tax ñu xal ci suñu tànkub tubay bi nga xamee ni cheikh sa cheikh cheikh sam su tàmbali na ko te yàlla jëlee ko bi ñu taxaw ci ba yàlla def fii ñu toll ñu di ci julli jumaa nag ñëpp ko moom ñu ngi woo ñëpp rawante naa ñi nga xam ne ñoom la yàlla def ci suñu kanam muy monsieur le maire di monsieur le préfet di leur adjoint bay yegg ci président la ñu ngi woo ñëpp gërëm na ko da koy metteel léegi waa kër cheikh na cheikh Saad bu nag rasulillahi mooy seen maam ku ñu dem ba metteel la mooy yàlla gërëm na la seen maam gërëm na la cheikh na cheikh Saad bu gërëm na la dañu donn ci seen maam li yàlla wax ci alquran ne laa yantiqu an il hawa in huwa illa waxyun yuxee seen maam yontu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam du wax dara ci teeyu bakkanam du def dara ci teeyu bakkanam lu mu wax yàlla moom moo ko ko déey moom yàlla moo ko wax yu ñoom nag loolu lañ donn ci seen maam mootax tax lépp lu ñu def rek dañ cee am ndigal kon moom mi yàlla gërëm na ko yont bi gërëm na ko cheikh na cheikh saad bu gërëm na ko cheikh nag ci kër cheikh na cheikh saad bu la cheikh nag li muy tekki ci kër cheikh na cheikh Saad Bou alif bi dafay nekk latif ku ñeewantal alif bi dafay nekk amirun bil maaruf wa nahyun anil munkar laam bi dafay nekk latif ku ñeewantal shin bi dafay nekk nasha fi taatillahi day taqoo ak jaamu yàlla yaay bi dafay nekk yusrun ku disponible lay doon xaay bi dafay nekk xaaifun billahi ñu ne xaadir dafay tabe bari xam-xam te xol ba day leer cheikh ku ñu cheikhal maanaam da ngay cheikh loo def lépp lu ñaaw loolu mooy maanaam cheikh ci kër cheikh na cheikh Saad bu xalif général de xaadir nag képp ku mu cheikhal ci tariqa bi am nga gratu général ndax président de la république moom rek moo am sañ-sañ ñu nommé général général kon xalif général de xaadir képp ku mu cheikhal am nga gratu général kon sunu waajur bi def na teraanga ju mag ju rëy ci xayma cheikh na cheikh Saad Bou gileem la ko reyal te nag la fa xayma bi masa a wàcc ak i nag ak i xar tubaarakallah macha dara manqué wul mu jóge nag bitim réew ngir yàlla ak yonent bi ak xayma bu teral ko muy kenn ci cheikh at xaana bii mu ñoom ñaar ñu naan jógu ko daanu ba tey lii lépp am ba jumaa ji taxaw tubaarakallah macha allah moo fi taxawal jumaa jumaa jëm tubaarakallah macha allah liggéey bi léegi mu àgg cheikh na nag sant na ko gërëm na ko bu baax lii doon ci birne cheikh na nee na ko yàlla na yàlla taxaw ci biir ak ci biti fajal la sa aaju yow ak ñi nga àndal ak waa Fass sant na leen gërëm ne leen ak say dëkkandoo say xarit say am di jàmm ñëpp cheikh na sant na leen gërëm na leen mi ngi leen di ñaanal tam wax leen amin amin amin ولد ممر فادل شيخ لالا شريف لا ولي ولا السلام عليكم آل بيت النبي الواكر سيدنا محمد السلام عليكم جبوت شيخنا شيخ محمد فادل أهلا وسهلا ومرحبا Sheikh Cheikh Saadu Labi doomi Cheikh Mohamed Taqiyullah doomi Cheikh Sidi Buya eh, eh, eh, kii Cheikh Saad Boo imaamam ay dara bi ay darin samaam gari da gay nelaw ca ma nga iwa imaamam Seydina Muhammad Sheikh Cheikh Saad bu neena xusa nabiyuna bi asratil xisaal lam yaxtalam xattun wala loo zilaal والأرض ما يخرج منه تمتلي كذا السباب حقا عنه ممتني شان الشخص بنين من خلفه يرى كما يرى أمام تنام أين وحب لا ينام شان الشخص بنين لم يتشوحته هو الصبي وإذا المقتون إليه تابعا كن الله تين دمياني ku doon laajte yeneen sët yaa ngi ahlu bayti nabi yéen waa kër yonent bi du ngeen ñun du ngeen ñoom du yàgg bëgg leen faratala sopp leen faratala ku leen dalal dalal na Seydina Muhammad ku leen sopp sopp na rasulallahi taarifo waa kër yonent ay dara bi ay darin Seydina Alxaame ay dara Cheikh Sidi bu yo ay dara cheikh na cheikh Mohamed Fadal Aydara waaye cheikh na cheikh Sadbu Taqiyullah mooy sunu xalifa xalifa cheikh na cheikh Sadbu xalifa cheikh Mohamed Fadal xalifa Seydina Mohamed Aydara seen maam taarifu jiital nañ ko mooy Seydina Mohamed dawaabu iina yarkabu taati ilay zalatan la tahrabu Aydara seen maam julusoo yaxlu julusu jalasa salla alayhi la saban wa masaba wa ka sayyidina Muhammad wa salaamu ala man la nabiya ba'da cheikhna cheikh Saad Bou doomu cheikh Mouhamed Taqiyullah doomu cheikh al Khalifa doomu cheikhna cheikh Saad Bou xalif général kullu qaadir mooy bëgg a yëkkati kaddu kon mbokki taalibe yi mbokki jullit yi na ñëpp déglu taataan ngir ñu jëriñu cheikh na cheikh Saad bu nee na mi ngi leen di sant mi ngi leen di gërëm yéen waa Tëngéej ci teertu bi ci tatagal bi ci dalal bi rafet bi ngeen ko dalal ak ak seen taxawaay bu rafet waaye nag mi ngi mi ngi ba tey cant ak gërëm cheikh at xaane bi ak taxawaay bu rafet bi nga xamante ne taxaw ngeen ko yéen waa Tëngéej ànd ko ak moom di taxawaay bu rafet moom it tubaaraka la macha allah cheikh na nee na mi ngi sant di gërëm di beral cant ak ngërëm cheikh at xaane mii ak seen taxawaay bu rafet ak moom mi ngi mi ngi ñaa mi ngi leen di ñaanal yàlla yàlla na leen yàlla na yàlla wàcce ci yéen barke wàcc ko ci yéen wàcc ko ci seen njaboot wàcc ko ci lépp lu ngeen am ci barke maamam yontu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam nee ci kanam ak gannaaw biir ak biti te mu te mu dàqal ñu loraange dàqal leen ko dàqal ko mboolem jullit ci àdduna bépp ci barke maamam yontu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci façon bu nekk mi nee na mi ngi ñaanal jullit yi nekk ci Sénégal yëpp ku ci nekk li nga bëgg yaa ko xam yàlla na ko yàlla defal ci barke maamam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu loraange dàqal leen ko dàqal ko mbooleem jullit dàqal ñu musiba gàtt fan kasara balaa déggu ñaaw yàlla nañ ko yàlla dàqal adduna ak alaxira ba faaw ci barke maamam yontu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam gannaaw loolu mi ngi dénk bokki taalibe yi bokki jullit yëpp nañ ko ñaanal yàlla moom fu mu toll mi ngi leen di ñaanal yàlla fu mu toll mi ngi leen di ñaanal yàlla te it nee na leen ñaanal ñaan koo xamante ne ci xolam la koy tibbee moom kalifa bi te gërëm na ñëpp sant na ñëpp tubaarakallah macha allah bi mu duggee Sénégal ba léegi bi mu duggee Sénégal ba léegi sant na ñëpp gërëm na ñëpp li ko dara ci njiitu réew mi li ko dara ci son excellence président de la république ak mboole membre gouvernement bi ak mbooleem ki autorité cheikh na mi ngi lay sant mi ngi lay gërëm di la ñaanal yàlla li nga bëgg ci sa xol ko yàlla defal bi jaay sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon yéen na leen ci kaw gàcci ngalaama tubaarakalla macha allah lépp rafet na ngeen ànd ko nag ak cheikh at mu baax bi tubaarakalla macha allah nañ ñëw nañ ñëw ñëw leen ñëw leen ngeen ziare ñëw leen si Sissoko mu ne ngeen ñëw. salaamaaleykum ñun de fanfare ah? bi ah, ah, bokki jullit ñuy seetaan ñoo ngi fii ci tëngee këri kaw ci jumaa ji ni ngeen ko xamee rek fii xayma cheikh na cheikh Saad bu daan wàcc fa tabaarakallah macha allah ren nag tëngee dañoo amaat leneen lu bees. ndax juma cheikh Shams Mbuub fa lañ njëkk a wàcc ren tabarakallah macha allah teraanga bu nekk ñu def ko biñ fa jógee itam waa kër yi kaw ak waa tëngee yëpp boot ci gannaaw at Atqaana doomu cheikh al Walid doomu at Atqaana doomu cheikh na cheikh Saad bu président fondation bu cheikh na cheikh Saad bu ku nekk xam na ko ci tariqatul qadiriya ak liggéeyam bu rëy loolu tey tëngeej wane na ko tabarakallah macha allah tëngeej tey teertu nañ teertu bu yéeme olof Njaay dañuy wax ne foo sànni bàtt mu tàkk waaye tëngee tey foo sànni pusa mu tàkk fa tabaarakallah macha allah réussite na réussite boo xamante ne yéeme na euh, du ñu sori kàddu gi dañ koy jébbal Cheikh Sidi Boye doomu Cheikh Hadrame doomu Cheikh bu noonu doomu Cheikh na Cheikh Saad bu ñu déglu ko. Euh, Cheikh Sidi Boye nee na mi ngi sant waa Tëngéej cant goo xamante ne am na fu mu commencé waaye amul fu mu yem ci lan ci seen teertu bu rafet bu jekk bi ci seen tatagal bi ci seen dalal gi ci seen kanam yu leer yi ak seen tubaarakàlla macha allah euh, teertu bi euh, dafa ala dawme ndax gis ngeen tubaarakàlla macha allah gileem yi biñ jógee ba léegi ñoo ngi koy soog gis te gileem dafa bokk ci loo xamante ne waa kër yontu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci seen cosaan la euh, gis ngeen fas yi tam bokk na ci seen cosaan gis ngeen tam bi ñëw tam macha allah ñuy way tala al badru boobu alayna min zanayatil wadaa'i bi nga xamante ne seen maam yontu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba muy dugg Madinatul Munawwara moom lañ ko doon wayal teertu boobu tabarakallah macha allah waa kër yontu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yëpp bëgg ci waaye nag xalif général des xaadir cheikh na cheikh Saad bu doomu cheikh Mouhamed Taqiyullah moom it moo ci jëkk a bëgg ak ñi mu àndal ñëpp ah, dafa wax moom Cheikh Sidi Boye bi ne teertu bi nga xamante ne tey waa ngee teertu na ko jéggi na dayo ndax euh, comme melakaan yi nga xamante ne décor bi nga xamante ne moom la am amul fenn euh, fu ñu dem tabarakal macha allah teertu nañ teertu bu yéeme mais bii tey euh, décor bi mu am nañ la wax ne dafa ala daw mi moom loolu la wax sànq mi ngi koy wax moom ak doomu xalifa bi mu ne mu ne mbuur tam tabaarakàlla macha allah ñoom it gàcci ngàllaama ñee leen ci kaw gàcci ngàllaama ndax euh, ci waa kër Cheikh na am na juróomi kër yi fa nekk ci waa kër Cheikh na waaye bi ñu jógee ren tabaarakàlla macha allah mbuur gis nañ ñu teertu nañ teertu boo xamante ni mosuñu ko teertu li am mbuur amul mosu fa am fa tabaarakàlla macha allah biñ ñëwee tëngee tabaarakàlla macha macha allah ñoom it gàcci ngàllaama ci kaw gàcci ngàllaama waaye nag fii li ci gën a yéeme mooy fii Cheikh At Khane rek moom moo fi nekk yàlla ko yàlla lafal cat bi jaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa waaye bi mu teertoo teertoom euh, roppi na gaañ yi nee na lii daal mooy kàddu yi nga xamante ne moom Cheikh Sidi Boye mënu ko woon a wax ndax mbégte boo xamante ne xolam fees na ko euh, mu gis ko tey ci waa Tëngéej ñu teertoo ko xalif général kulu xaadir Cheikh na si sal mi ngi ko wax it ci kanam Cheikh Mouhamed Awa bi nga xamante ne doomu Cheikh Abdourahmane la doomu Cheikh Taalib Boya doomu Cheikh na Cheikh Mouhamed Fadal boo mbuur tam moom moo fay kilifa euh, waa kër yontu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam yi ne foofu moom it tubaarakallah macha allah kii mooy seen kilifa te it mbuur tubaarakallah macha moom it réussir na réussite boo xamante ne euh, cent pour cent la sànq rek maa ngi ko koy wax ci façon bu nekk ndax mbuur base bi mu nekk fi mbuur mbuur ni mu nekkee la moo tax tubaarakallah macha allah yàlla def na fo réussite boo xamante ne tubaarakallah macha allah euh, ñëpp bég nañ ci daal kon yàlla fay gen gi fay Cheikh Mouhamed Araf kon ñu déglu ko aywa mhm. Chérif nee na mi ngi nuyu ñëpp Chérif Mouhamed Araf nee na am nañu mbégte lool ci waa Tëngéej ba fa mbégte yem ndax teertu bi ñu def tabarakallah macha allahu yéeme na ñoom nee na ñoom waa Mbuur sax nee na mën nañu mën nañ ne sax waaw Euh, bu ñu roppee ñi mën nañ ne waaw ndax ñoom tubaarakal macha allah juróom la ñu juróomi kër ñoo fa nekk fii nag fii nag Cheikh At Qaana wii rek moom moo fi nekk tubaarakal macha allah e gis ngeen ni teertu bu mel ah taalibe yi boot ci gannaaw Cheikh At Qaana tubaarakal macha allah ñoom it seen taxawaay tubaarakal macha allah li ñu def rafet na lool taaru na ñu ngi leen di nuyu bu baax waa Tëngéej ñëpp ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen sant di leen gërëm di leen ñaanal yàlla texik àdduna ak texik àllaaxira yàlla na leen ko yàlla defal lu ci islam sallallahu alayhi wa ah ñu ngi sàkku nag ci Pikine ñu dëgmal xamante ne tabaarakalla macha allah dañ daan wax ne at at bu nekk Pikine ñoom ñoo mën ci teertu ñu ngi sàkku ci waa Pikine ñoom gis nañu li xew nañu fexe nag ba def lu raw lii lépp li amagul ñu ngi leen di nuyu ñoom it taalibe nekk Pikine di leen sant di leen gërëm tabarakallah macha allah kon ñu jëbal kàddu gi fa ñu jëbal kàddu gi Cheikh Pathé shabab ah, ñu yokkoon ah, Chérif Fa mu wax ci tur bismillahi rahmaani rahim euh, asalaamu aleykum wa rahmatullah ñoo ngi nuyu mbokk ju yi nuy seetaan ci chaîne bu tedd bi gannaaw bi nu jëlee ndigal ci cheikh Sidi Boué euh, jëlaat ko ci cheikh xaana bi xam ni moo teeru tey xayma bi di porte parole xalifa général des xaadr euh, cheikh na cheikh Saad bu doomu cheikh Abdullah doomu cheikh al xalifa doomu cheikh na cheikh Saad bu nu yëkkati ay kàddu nag ci li jëm si euh, teeru xayma bi si Pikine Pikine dafa nekk banlieue boo xam ni moo gën a rëy daanaka ci Dakar Dakar te eh, nu nuy seetlu xayma yi daan ñëw yëpp eh, teertu bi daan xew pikin daawul xew fenn ren nag eh, nu jël décision ñun ñi xam ne nooy shérif yi xam ne noo jiite mbir yëpp ndax benn taalibe mënu nekk chef taalibe taalibe rek moom lay doon day topp ndigal rek ñun nag ñëpp nu takk suñuy ndiggi ñu daanu liggéey daanu tarbi xalifa bii di ñëw di si woo nag waa kër Cheikh na yëpp yi xam ne ñun noo bokk liggéey bi nu ànd nu liggéey ko nu tertu xalifa bi képp nag koo xam ni taalibe Cheikhna Cheikh Saad Bou nga te mu dëggu si yow nga xam ni sëtu Cheikhna Cheikh Saad mooy ñëw nga xam ni kii ñëw mooy le plus âgé des descendants de Cheikhna Cheikh Saad kon nag bu Cheikhna Cheikh saat bu doon ñëw tey Pikine nga ni da koy teeru te ki gën a mag ci ay sëtam mu ñëw teeru woo ko war nga xoolaat sa bopp kon noo ngi woo taalibe yëpp nan takk seen diggi nan xam ni mbir mi ñoom ñëpp a ko moom taalibe Cheikhna Cheikh Saad bu yëpp a moom bàyyi nu benn taalibe boo xam ni dafa naan keneen moom lii wala keneen moom lii wala keneen taalibe Cheikhna Cheikh Saad bu yëpp la ñuy woo woote rek bi ñuy woote bi mooy nanu teertu xalifa bi di Cheikh Saad bu doomu Cheikh Takullah doomu Cheikh xalifa doomu Cheikh na Cheikh ñun ñëpp nanu takk suñu ndiggi vendredi quinze heures bii nu jëm ñun ñëpp nanu daje si buntu pikin nu teertu suñu xalifa nu yóbbu ko dalal ko pikin te gëm naa ni incha allah loo def si moom muy liggéey muy barke muy addiya doo ko rëccu ndaxte moom la ñuy xoolee seen Cheikh Saadu bi kon nag nuy woo sang yi fa dëkk di leen di ndokkeel ñoom ñëpp di ñaan yàlla yal nañ yàlla dooleel nu ñun ñëpp ba nu liñ bëgg yëpp yàlla may nu ko ba tertu bi jaar yoon ba mu nekk tertu boo xam ni amul fenn loolu kàddu yooyu la ñu amoon ngir yëkkati si ndigalu xalifa bi ak ci ndigalu Cheikh At di porte parole bi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. aouzu billahi min seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim maa ngi nuyu ñëpp di commencé si Chérif At Aydara di suñu wasila di nuyu Cheikh Cheikh Sidi Bouya Cheikh Mohamed ah Sidi Bouya nuyu. Cheikh Mahmoud Farwa hmm? di nuyu tamit euh, Maguette représentant du du préfet euh, di wante daal suñu mbégte tey teg ah, Chérif El Walid ah, ah. maa ngi nuyu ñëpp ngeen baal ma dama xamul dama xam jàppul tur yëpp ah dama jàppul tur yëpp euh, waa Tëngéej vraiment kontaan nañu parce que lii ñu gis tey Eh, man musuma ko musuma ko gis si teertu na waaw ñun li ñu li ñu raté si teeru Cheikhna bariwul ah eh, eh, fekkee nañ yu bari bari ay si teeru na wante bii man musuma ko gis hmm? lépp nag dañ koy wax si liggéeyu Cheikh si liggéeyu Chérif waaw si liggéey Chérif moom moo liggéey moo mobilisé mille euh, moo moo mobilisé taalibe yi jeunesse taalibe yi yëpp moom moo leen si yi nekk si Tëngéej euh, defe naa mosuma gis sax Chérif mu impliqué su mel noonu si ter ni mu impliqué si bii defe naa mosu koo impliqué si si yeneen si yeneen xalifa yi nga xam ne ñoo fi ñoo fi jaar ñu kontaan si trop euh, man suma wàllu bopp may euh, may gërëm d'abord Chérif ndaxte bu ma buñ ma defee euh, représentant du xalif général des cadres si département bi si moom la hmm. si moom la mu nekk nag teraanga bu rëy boo xam ne kontaan nañ si suma famille yëpp tam kontaan nañ si muy famille Cheikh Sën Diaw Cheikh Pathé Sarr euh, Cheikh Babacar Ndiaye bi nga xam ne moom a jur hmm. ñoom ñëpp kontaan nañu si si cër boobu ñu ñu ma jox mi ngi mel ne tam ñoom ñëpp lañ ko jox famille bi yëpp lañ ko jox ñu si gërëm bu baax Chérif ah, kontaan si e fas yéene nag def lépp lu ñu mën lépp lu ñu mën incha allah dinañ ko def ah, pour euh, pour teral euh, xalifa bi ah, Cheikh Sadibou euh, Tukuya Tukuyla incha allah Ah, dina kontaan si dina kontaan si waa Tëngéej waaw ah. ma si profito tamit di remercier bu baax le préfet le préfet de Rufisque parce que sécurité bi mu déployé ah, moo tax ñu mën ñu mën jàll bu baax si biir Tëngéej sans difficulté ah sécurité bi vraiment baax na ah Maguette nee na mën na ñëw juróom trente mais mi ngi mel ni ñun ay si cent la daal <laughs> mel ni gis nañ cent policiers ñoo ñu encadré ba ñu mën jàll si si circulation Tëngéej bi ah màgget nga boo demee nga remercier ñu bu baax le préfet ah moom moo moo ñu si jàppale moo ñu jàppale tamit si service d'hygiène ba place yi nga xam ne dañuy dal dañ ko nettoyé ba mu set wic dañ ko nettoyé ba mu set wicc ah, ah, kontaan nañ si bu baax. Euh, ñuy euh, nuyu tamit waa Pikine ah, yi xam ne ñoom ñooy euh, ñoom ñooy jël après fii ak ñaari fan hmm, di leen nuyu baax di leen dalal jàmm di woote tamit waa Tëngéej ñu ñëw ziyaare si xalifa bi xalifa baa ngi fi mi ngi fi suba mi ngi fi suba à partir de dix heures ba gannaaw suba àjjuma ajuma si bu ñu julee euh, bu julee euh, juma euh, mu door mu door a jóge waa waa ñëw ñëw yóbbu ko bon ñu ngi si woo waa Tëngéej ñëpp ñu ñëw ziare le xalif général des des cadres nga xam ne moom la ñu moom la famille famille Cheikh Saad Bou yëpp taxawal jox ko xilaafa bi waaw waaw ak famille baayam Cheikh na Euh, loolu daal laa moom lu mooy wax vraiment di kontaan di kontaan si cër bi toujours cër biñ ma jox parce que bu may fàttaliku élection élection yi passé le 23 janvier euh, deux mille euh, deux mille vingt et man doon naa wuutu conseil départemental hmm? mais yàlla defe ko suma candidature mujjewuñ wuñ nangu mu mel ni tey le cinq janvier le 25 janvier 2023 cër bi ñu ma jox man moo ma gënal conseil départemental waaw booy xëy na cër bi lañ ma denc loon voilà ñu kontaan si bu baax incha allah jërëjëf. mu ne gannaaw bi ñu santee yàlla ñaan yàlla doot xeewal ci seen maam yontu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñi nga am mbégte mu rëy di yëkkati kàddu ci xayma cheikh na cheikh Saad bu ci xayma cheikh na cheikh Saad ci jamonoy xalifaam. ci jamonoy xalifaam. di Cheikh Saad Bou. di Cheikh Saad Bou. Cheikh Taqiyullah. Cheikh al Khalifa Cheikh na Cheikh Saad Cheikh na Cheikh Saad Bou. mu nekk fii ci Tëngéej. ci këri kaw. ci këri kaw. nekk fi teewaayu. nekk fi teewaayu. ci kilifteefu. ci kilifteefu. sunu mag yi. sunu mag yi. muy Cheikh Sidi Bouya. muy Cheikh Sidi Bouya. Cheikh Adrami. bu cheikh bu neen bu cheikh na cheikh bu cheikh na cheikh Saliou ak cheikh Mouhamed Arawaf doomu cheikh Abdourahman doomu cheikh Talib Boye doomu cheikh na cheikh Mouhamed Fadel bu mag cheikh bu nen na cheikh bu nen na bu cheikh Mouhamed Lamine waa kër jéewul cheikh Mouhamed Limam cheikh na cheikh Mouhamed Fadel cheikh Talib Boye muy Cheikh al Walid mu Cheikh al Walid ñu xam ko ci faa ak wali doomu Cheikh Hadrame ak Hadoum ñu tax xam ko Cheikh Hadrame doomu Cheikh Sidi Bouye wa doomu Cheikh Wulunna mu wax léegi ci seen kàddu Cheikh bu ne na agsi na léegi maa ngi ko doon xaar maa ko jëkk a def ci sama wet ci ci wàllu porte parole bi rakkam di Cheikh Ba mu doon coordinateur général mu doon ko coordinateur général bu xilaafa bi mu xaw ko nangu moom it mu xaw koo nangu mu xaw ko nangul loolu. mu xaw ko nangul loolu. ndax liggéey bi gën a mën a dem. ndax liggéey bi gën a mën a dem. macha allah mën na mën na si ñaar yëpp. ndax macha allah mën na si ñaar yëpp. mën na ma jàppale ci porte parole bi. na ko jàppale ci porte parole bi. français ak arabe ci français ak arabe ak anglais ak yooyu. waaye mën na euh, euh, mën na jàppale itam. mën na jàppale ci wàllu coordination bi. ci wàllu coordination bi. ci anam yu rafet. ci anam yu rafet. ci mi ngi bay waaram ci ñaari côté yi ñaari côté yooyu yëpp waaye fu mu nekk nii li tax yëkkati kàddu gi. waaye fi mu nekk nii li waral ñu yëkkati kàddu gi. mooy état bu. mooy état bu. Tëngéej. Tëngéej. ci wàllu tournée bi. bi. mi nga xam ne maam Cheikh na Cheikh Saad bu moo ko tàmbali bi nga xamante ne maam Cheikh na Cheikh Saad moo ko tàmbali woon. juróom at ak téeméeri at ak. téeméeri at fukk. ak juróom fukki at. ak juróom képp kuy xalifaam ngay mag ci njabootam ngay mag ci njabootam ñu def la xalifa mu nekk sa wareef mu nekk sa wareef nga dox ko wax ko nga dox ko wax ko mi ngi jëm nag mi ngi jëm nag ci taalibe yi ci taalibe yi lu shérif yi bari bari lu shérif yi bari bari ñu bari xéewal li ñu bari xéewal jëmul ci ñoom jëmul ci ñoom taalibe yi ñoo ko moom taalibe yi ñoo ko tax a jóg seen maam ko moom seen maam seen seen maama ko moom seen i sët seen xalif généraux ci xalifa yi ëttu maam Cheikh na Cheikh Saad Bou maanaam cheikh yi Cheikh na Saad Bou cheikhaloon ñoom ñoo ko moom ñoo moom tournée bi ñoo tax xayma bi jóg fu waa kër Cheikh na nekk nag dañuy nekk appui dañuy ñëw pour dooleel taalibe yi moo tax ci ndar demul ci waa kër Cheikh Khalifa moo tax ci ndar demul ci waa kër Cheikh Khalifa ci ngumba demul ci waa kër Cheikh Ba ci Louga ci Mbour ci Mbour demul ci kenn ci chérif yi fi nekk demul ci kenn ci chérif yi fi nekk Cheikh Mouhamed Akhbar donte taxaw nañ taxawaay bu rafet fii itam ci tëng jéej fii itam ci tëng jéej demul ci kër chérif ci HLM demul ci kër chérif Atqaana ci HLM ci kër cheikh bu mag demul ludul ci kër cheikh bu mag di cheikh euh, Ibrahima Mbuub di cheikh Ibrahima Mbuub euh, magam di cheikh Shamsu Mbuub magam di cheikh Shamsu Mbuub ñu ànd foofu liggéey liggéey bu rafet ñu ànd foofu liggéey liggéey bu rafet Eh, ci seen ëttu waajur. ci seen ëttu waajur. di Cheikh Ndongo Mbuub. di Cheikh Ndongo Mbuub. mi Cheikh na Cheikh Saad bu defaroon. mi Cheikh na Cheikh Saad bu defaroon. fii. fii ci këri kaw. ci këri kaw. mu doon dalu cosaan. mu doon dalu cosaan. wax nañu ni. wax nañu ne. Cheikh na Cheikh Saad bu. Cheikh na Cheikh Saad bu. fi ka tiwil. fi ka tiwil. fii la kër Cheikh San Diaw. ni fii la kër Cheikh San Diaw. Cheikh San Diaw mooy famille eh, Cheikh Babacar Ndiaye Ndioro. mooy yaayu Cheikh Pathé Sarr. mooy yaayu Cheikh Pathé Sarr. nga xam ni. mi nga xam ne. xalifa kër gi tey. xalifa kër gi tey. waa kër Cheikh Sène Diaw. waa kër Cheikh Sène muy Maguette Sarr. muy Maguette saar muy Cheikh Pathé Sarr. muy Cheikh Pathé Sarr. ñooñu ñëpp. ñooñu ñëpp. ak seen i bokk. ak seen i mbokk. ñoom la ñu delloo mbir mi ci seeni loxo. ñu teeru ko teral ko. ñëw fii ci seen kër. ñëw fii ci seen kër. fa la xalifa bi jëkk a wàcc. jullee fa timis. ñaan fa gërëm leen sant leen soog a ñëw fii. fële ci Cheikh Ibrahima Mbuub. fële ci Cheikh Ibrahima Mbuub. ci jumaa Cheikh Shamsuddin. ci do ci ci jumaa Cheikh Shamsuddin. Cheikh Shamsu Mbuub. Cheikh Shamsu Cheikh Shamsu Mbuub. ci Faas Nimjaat. ci Faas Nimjaat. foofu la xëy tey. foofu la xëyee tey. wàcce lu kaamil. wàcce lu kaamil. ñëw ziyaara ñaanal. ñëw ziyaara ñaanal. Cheikh Shamsu. Cheikh Shamsu. ak Cheikh Touré bi mu àndal. ak Cheikh Touré bi mu àndal. ci barab bi foofu. ci barab bi foofu. waxtaan ak waa tund bi ak waa gox bi. ba ñu kontaan. mu ñaanal leen sant leen gërëm leen ñu soog a ñëw fii tey ci ngoon wax ji nag li ko yëkkati lépp gaa fi ñu jaar sant leen gërëm leen sant chérif yi sant taalibe yi euh, état bu appartement Rufisque comme suba ba ngoon ba gannaaw suba ci ngoon xayma bi mi ngi fi. xalifa bi mi ngi fi xayma baa ngi fi. mi ngi fi ku bëgg a ziyaare it mën ngaa ñëw. ñi bëgg a ziyaare ñëpp mën nañoo teew. waaye ñu dëgmal beneen étape. bo am solo. muy Pikine. Pikine presque. deux tiers population Ndakaaru. fa la ñu dëkk. te ñëpp xam nañ seen manin. teeru teral ak addiya. bi yoon nag bi yoon nag dafa am changement tuuti dafa am changement tuuti ci fi xayma bi daan nekk ci fi xayma bi daan nekk ci wàllu famille bi ci wàllu famille bi ak wàllu barab bi ci ak wàllu barab bi barab bi ñu ngi ko yóbbu barab bi ñu ngi ko yóbbu ci bayaalu Serigne Mansour ci bayaalu Serigne Mansour ci Ecotaf ci Ecotaf euh, ñi yor ngan gi yor ngan gi teeru bi ak teral bi ñor bi ak teral bi. muy képp kuy shérif. muy képp kuy shérif. nga dëkk fa. nga dëkk fa. wala nga am fa mbooloo. wala nga am fa mbooloo. yaa yaa yor. liggéey bi liggéey bi. ak say morom ya fa nekk. ak say morom ya fa nekk. waaye ñu bàyyi xel ni. waaye ñu bàyyi xel ne. shérif yi moomuñu tournée bi. shérif yi ñu tournée bi. taxul tournée bi jóg. taxuñoo taxul. taxuñu taxuñu tournée bi jóg. ñoom dañu appi rek. ñoom dañu appi rek. leadership. waaye. li maanaam ñi nga xam ne ñoo jiite. ñi nga xam ne ñoom ñoo jiite. wooy taalibe yi ci wàllu teeru bi ak teral ak addiya fu ëttu maam Cheikh na Cheikh Saad bu nekk fu ëttu maam Cheikh na Cheikh Saad bu nekk ñu mel ni waa kër Cheikh Bachir lii comme ñu mel ne waa kër Cheikh Bachir lii Cheikh Ibnu Arabi lii ci yoon ci yoon ñoo ko moom ndax Cheikh Ibnu Arabi ndax Cheikh Ibnu Arabi moom la Cheikh na mujj a seexal ci kaw suuf moom la Cheikh na mujj a seexal ci kaw suuf Cheikh ah, Bachir Cheikh Bachir ñëpp xam ko xam njabootam ñëpp xam ko xam njabootam ñi ci ëpp bitim réew la ñu nekk taawam bi fi nekk yaram bi doo sutante ba nekk hôpital moo tax kenn tegu leen benn coono waay nag cër bi ñoo ko moom waa kër Cheikh Kabiru Mbooj ak soxnaam di soxna Abi Jaañ ñoom seen taxawaay ci kër gi ñëpp xam nañ ko ñëpp xam nañ ko seen nekkin ci Pikine ñëpp xam nañ ko tax na Chérif Atkhana sol dàllam dem ba ci ñoom sargal leen jaale leen xamal leen ni mbir maa ngi ñëw te du fi jaar mukk te yëguñu ko niñ ko war a yëgee dem nañ ci ñetti dal ba ñeenti dal yoo xamante ne at bu nekk ci mbuur muy gannaaw raay muy Ecotaf muy tali bu mag muy ridis muy syndicat ñoom ñëpp ñu xamal leen ne dal bi ren Chérif Atkhana moomu ko moom ak mboolem kilifa Chérif yi kenn ku ne yaay xalifa sa famille maam sa famille waaye fi mu nekk nii dañu laxasaayu euh, jàppale jàppale gunge gunge sunu xalif général xam muy muy Cheikh na Cheikh Saad bu di xalifa yi xalifa yi kon nag yéen ñëpp daan mobilisé wu. yéen ñëpp daan mobilisé wu. di teeru di teral. di teeru di teral. di joxe addiya. bi yoon bi yoon. na ngeen ko gën a yokk. na ngeen ko gën a yokk. jëmee ko ci. jëmee ko ci le 27. le 27. ci janvier bi janvier bi ci ngoon di ajuma. ci ngoon di ajuma. ba le 30. ba le 30. ndax le 31 la woon. le 31 la woon. waa Gueule Tapée dañu ñaan ba ba tëdd ci suuf fokk ñu yokkal leen benn fan moo tax ñu jox leen euh, le 30 bi bi le 31 le 30 ba le premier ñu ngi ci ñoom loolu moo waral loolu euh, am nañu ko corrigé ba pare ci seen programme. am na ñu ko corrigé ba pare ci seen programme. am na ko jotul corrigé. message bi waaye message bi. da bokk ci li koy corrigé. da ci li koy corrigé. kon daal euh, le 27 ci ngoon. bala 30 ci ngoon. bala 30 ci ngoon. nañu xam ne. Pikine moo moome. taalibe bu fa nekk cheikh bu fa nekk daayira bu fa nekk association bu fa nekk xamal ne mbir mi sa mbir la bul ci xaar kenn bëggee ànd ak sa morom boo bëggee ànd ak sa morom yaa xam boo bëggee demal sa bopp boo bëggee demal sa bopp yaa xam shérif yi fa dëkk shérif yi fa dëkk ak ña fa seen taalibe nekk seen i daayira ñoom ñëpp la ñu woo mënuñu wax ni diw ci taalibe yi ci taalibe yi wala diw lañ jox shérif yi bu boobaa day mel ne kooku rek la ñu xam kooku rek la ñu faale ñu ci des ñu bàyyi leen gannaaw kon mbirum ñëpp la na ci ñëpp jàpp sañ na wax ni man maay lépp. kenn ku nekk sañ na wax ne man maay lépp. sañ na wax ni man ak samay mbooloo. ku nekk sañ na wax ne man ak samay mbooloo. bëgg nañu def lépp 100% bëgg nañu def lépp 100% ndax bu boobaa. day gën a baax rek day gën a baax rek te xam nañu ne loolu rek kay am ñu ngi ñaan sunu borom subhaanahu tabaaraka wa taala yóbbu ñu ci jàmm ak salaam di gërëm fépp foo xam ne xayma bi jaar na fa gërëm chérif yi gërëm taalibe yi gërëm population bi. di wax mboolem ku jullit moo xam imaam yi ci jàkka yi moo xam borom daara yi ak daayira yi moo xam représentant xalif généraux yi ci xaadir yi ci tijaan yi ci ñaseen yi ci laayeen yi ci kunta uh, kunta yi fu mën a doon mbir mi sa mbir la yaa ko moom mbir mi sa mbir la yaa ko moom mbir mi sa mbir la yaa ko moom bul xaar ñu lay yëgal ñu lay xamal wala ñu yónni leetar wala ñu lay defal communiqué. Eh, liggéeyal yàlla. liggéeyal yàlla. seenu asamaan la. seenu asamaan la. jarul buuxante. jarul buuxante. kenn ku ci nekk am nga place. kenn ku ci nekk am nga place. ci sa yéene ak sa pas-pas. sa yéene ak sa pas-pas. ak sa wërsëg. bi la yàlla wërsëgale. ci lu ni mel. ci lu ni mel. surtout Cheikh Hassan bu Cheikh na Cheikh Mouhamed Fadel. di jàmbaar ci liggéey bi. di ci sonn guddi ak bëccëg. fii ci Sénégal ak Mauritanie. ak feneen. ak euh, doomam. Cheikh Saad bu. di Cheikh Saad bu. mu Cheikh Mouhamed Taqiyullah. mu Cheikh Mouhamed Taqiyullah. di di di di tudd. di tudd. Cheikh na wul Sidi Mbarak. Cheikh na wul Sidi Mbarak. di sunu jarbaat. di sunu jarbaat. di sunu doomu baay. di sunu doomu baay. di sunu rakk. di sunu lépp. di sunu lépp. di jàmbaari mbooloo mi. di jàmbaari mbooloo mi. di tudd Cheikh Mouhamed. di tudd Cheikh Mouhamed wala Abdaati wul Cheikh Sidi Bouya wala wul Cheikh Abdaati nga xam ne mooy xalifa kër Cheikh Abdaati bu Cheikh na Cheikh Mouhamed Fadel fii la nekkoon sànq mu dem kër ga di tudd sunu doom di Haddaami Cheikh al Hadraami doomu Cheikh Bunanna doomu Cheikh Hadraami doomu Cheikh Khalifa ak euh, Cheikh al Mahfou. Cheikh Mahfou. mu xa mu Cheikh al Hadrami mu Cheikh Khalifa. mu Cheikh al Hadrami Cheikh Khalifa. Euh, ci Mahfou Ansar. Mahfou Ansar. ak mboolem. ak mboolem. ku bokk ci tournée bi. ku bokk ci tournée bi. am nga fi ay ndaw yoo xam ne. ñu ngi tarbiyu. ñu ngi xar seen tànk tubéy. ci liggéey bi. Euh, ku mel ne Cheikh ku mel ne Cheikh Mouhamed Fadel moom it. doomu doomu doomu Cheikh Dieye. doomu Cheikh Ahmed Ibrahim doomu Cheikh Dieng mi ngi fi woon di jàmbaar. Sidaati Sidaati doomu Cheikh Bunanna. Sidaati doomu Cheikh Bunanna. Wuli Dieng. Euh, euh, ak Cheikh Hadrami doomu Cheikh Wali doomu Cheikh Hadrami. ak Cheikh Hadrami doomu Cheikh Wali doomu Cheikh Hadrami. ak euh, ak ba tey ak ba tey Chérif Dieng doomu Cheikh Mouhamed Saad bu. doomu Cheikh Mouhamed Saad bu. doomu Cheikh Mouhamed Limam doomu Cheikh Mouhamed Fadel te moom it mu nekk fii waat ci mu nekk fii Tëngéej doon jàmbaar yi fàkk tëdd moom it jàpp na ci bis bi Ahmedou doomu Taalib Boye wulu mën naa moom it mi ngi fii ak ak Cherif Hassan mu mu sant yàlla bi nga xam ne mooy jànga mooy jàmbaaru Tëngéej dañu wéetoon lool waaye bi mu ñëwee fii weetatuñu ndax lépp loo xam ne dem na ci kër gi loo xam ne dem na ci kër gi ak taalibe yi mi ngi ci bay waar boo xam ne kenn kenn mënu ko def ku dul kenn mënu ko def ku dul moom mel ne Mahfouz doom bu xay doomul xays mu Cheikh na Cheikh Mouhamed Fadel di waa kër Cheikh Mahfouz mi ngi fi doomu Cheikh Sidil Xeer bu Casamance moom it mi ngi fi woon Casamance mi ngi fi woon moom it mi ngi fi doomu Cheikh Mouhamed Taqiyullah taawu xalifa bi waaw <laughs> ma ñu koy sant Hadraame wala Sidi Booya bunen na ak Abdaati doomu Cheikh Sidi Booya di ak Cheikh Mahfou Chérif Ba eh, Bungumba

lépp loo xam ne dañ ko misaale alquran lépp loo xam ne dañ ko misaale alquran jaar na yoon ni mu ware jaar wax dëgg yàlla ñi nga xam ne tudd nañ leen fii depuis bi affaire bi amee ba léegi depuis bi affaire bi amee ba léegi kenn ku ci ne talatoo sa bopp talatoo sa liggéeyu bopp talatoo sa famille yaa ngi ci lii rek aada bu yàggale ci kër gi première année xale bu bees dañu bàyyi suñu lépp ñu jàppale ko gunge ko bu taxawee ba taxaw deuxième année troisième année ku mu neex mën na ànd ak moom ku mu neex mën na toog cheikh cheikh na cheikh ay yàlla na ko yàlla xare àjjana dama ko ne woon première année taxaw nañu sa wet waaye deuxième année bi waaye deuxième année bi dafa am benn xeetu naar dafa am benn xeetu naar ay sàmm lañu na bu ñu ratt am na këll bu ñu ratt gileem. dañu am at at bu naataange lool. dañu am at at bu naataange lool. ñu jël këll bi. feesal koog soow. teg ko ci kaw gileem. ñu bàyyi koog moom. ñu ne ko téyel sa bopp. màggatu borom gileem. war na ma boppam ci kaw gileem. <laughs> ah Chérif Chérif Mouhamed Lamine tam doomu Cheybata tam ñu ngi sant bu baax di ko gërëm moom it tabaaraka Allah allah mi ngi ci. borom yoof kooku tam moom moo nekk yoof cheikh wulu ne tam macha allah ñu koy sant di ko gërëm moom mooy borom yoof Mouhamed Lamine doomu Cheybette dañ ko ni dañ ko ne yoof moom ak ñaari magam ak ñaari magam xaw ma ñu tudd leen ay lébu ah mu ñu leen ay lébu wala ay shérif lañu wala ay shérif lañu mooy Mouhamed Ayni Wulu Miin mooy Mouhamed Mal Ayni Wulu Miin ak euh, shérif ak shérif Hassan ba mu leen ooyee man dama leen euh, mu ne leen man dama leen woo xaw ma ndax mantu lébu gi xaw ma ndax mantu lébu gi wala mantu shérif gi moo tax ma wax ak yéen waaye li am solo daal dañu bëgg yoof mu riir bu baax mu réussir eh, ak Ngor Wakaam eh, sunu doom Mouhamed Lamine am nañ ci yaakaar lool ndax taxawaayam ci ndaw ñi bu fees la ci li ñu soxla lool di wax ak moom loolu mi ngi ba Arabie Saoudite waaye bàyyi na lépp mu ñëw jàpp ci eh, Cheikh amul benn chérif boo xam ne chérifu jinne yi jox na ko téléphone waaw loolu sax ñu ne ko ñi ñëpp ngay woo dama ko respecté te jox ko cër moo tax ma woo ki ma war a woo ak ki ma warul woo sax parce que pour man ah, pour man lépp lu mooy sonn ci Cheikh na Cheikh Saad Bou jar na ko moom itam moom itam amul jotu liggéeyam te am même centième. mu yenn saa am ni ko Chérif. man naa am loo xam ne wax loo xam ne sax du noonu. waaye xër rek moomu ci yóbbu. bëgg mu réussir rek. tubaarakallah macha allah law la cat gàcc ngàllama ñal na ci kaw gàcc ngàllama ku mel ne Cheikh Taalib Boye doomu Cheikh Saad bu Chi bi. moom it tubaarakallah macha allah taxawaayam rafet na. ku mel ne moom it dafa obligé ñëw. en fait. Uh-huh. dafa obligé. ñëw. margare amul jot yaramam neexul waaye pour tey bis bi rek yàlla xam ne bi ma gisee dama ne kër gi kenn desul ñëpp ñëw nañu doon bàyyi ko xel ci añ <laughs> xamuñu fan la féete gaa waaye xam nañu ne liggéey bi moo ko jaral loolu euh, waa Chérif Paali Booy doomu Cheikh Saad bu Chibi taxaw na taxawaay bu rafet situation bi. waaye situation bi. fekk nanu fekk nanu. ci situation boo xam ne. cette situation boo xam ne. mënuñu wax leneen. mënuñu wax leneen. ndax sunu waajur. ndax sunu waajur. sunu bàjjan. sunu bàjjan. di sunu tante. di seen yaay. muy waliyu bu mag bi. muy waliyu bu mag bi. di bokk ci ñu raar léegi. di bokk ci ñu raar léegi ci kër gi. mooy ñi nga xam ne kenn rek moo dox seen diggante ak Cheikh na Cheikh Saad Bou. di tante ci Cheikh Sidi Boyam yi. moom moo fi jóge. gannaaw mi ngi toll ci lu mel noonu sunu yaay soxna xijje waaw dul toppatoo gan yi foofu ak toppatoo dëj bi waaye xam nañu xel ne euh, Cheikh Taalib Booy doom Cheikh Saad bu Chibi moo leen représenté ci biir xayma bi ci biir mbooloo mi xam nañu xel ne fàttewul xayma bi te lim ci man dana eh, dana dana ko def incha allah Cheikh al Cheikh El Fadil moom it bu Kébémer ak euh, rakkam Cheikh na ñu ngi leen di jaale rakkam xam ne nitu yàlla lool nitu yàlla lool mu jeex tàkk Cheikh na Cheikh Saad Bou di ajuwa dina dafa tombé mu génne àdduna moom mii dem naa ba woo wul umeer pour mu am lu ma jëflante ak moom pour mu dem ci ñoom waaye mu ne mu xalifa bi ak mbooloo mi am na lu ñu décidé ba def ko mu ne ko kon defatuma dara wasalaam onze billahi a sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim maa ngi nuyu ñëpp di ziyaara di sant yàlla doolu julli si Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam ndax lii tey di ziyaara bi macha allah ñuy teeru sunu xalifa bi ma Cheikh na Cheikh Saad Bou ah, euh, kii di porte parole am di cheikh bi ab xaana uldu Walid uldu ab xaana uldu Cheikh na Cheikh Saad Bou abi uldu Cheikh Mohamed Vadal di porte parole yàlla def macha allah tey jii mu ñu waaru fiska aye fi ab xaana dëkk euh, mu am réussite totale vraiment dañu bëgg dañu bëgg dañu kontaan dañu kontaan lool parce que teeru bi am tey jii mucc na ayib géej na bu amee ma xam ne géej na li ñu gis tey jii macha allah bu ma mënul wax guleetit ma ne géej na sant yàlla nag di sant sunu sëriñ bii di Cheikh Wat Xaana di sunu wasila ul du waalid ul Wat Xaana ndax nag lii moo ko liggéey moo ko liggéey macha allah ràññee na xam na uuf na ñëpp taaliba bu njëkk ak bu mujj lay yemale macha allah tabaarakallah ñu ngi leen di gërëm ñi ñëw ñëpp ba ci ñi ñëwul ñu ngi leen di gërëm di leen sant di la ñaanal yàlla sa télévision bi yal na ko yàlla ful def kay ay télévision yi télévision yi télévision Wade Seer yal na nga am wér yal na nga am kàttan yal na la yàlla dooleel barke nabil Moustapha ndax xale bu baax nga tabaarakalla macha allah ñoo la yarte boobu ba léegi ma soo changé ma soo aw yoon wu ja woo xam ne rek yoon wu safaanu la kon nag yàlla mi am jàmm di jàppale doom aadama yal na la jàppale aar la làq la fa yàq yeggul barke nabil Moustapha alayhi salaatu wa salaam barke maam Cheikh na Cheikh Sadou Abdoul Cheikh Mamadou ñuy gërëm nag alwalid ay dara mi nga xam ne mooy. doomu Chérif Asxaana ak njabootam gi yëpp macha allah du ñu lim njabootam mais alwaalit fa tabaarakallaa tànku nen la def di daw di daw te noonu la def depuis Rosso ba ba ñu ak si Tëngéej fi ñu jaar yëpp macha allah alwaalit day daw rek taxawu papam ji encadré ko mook ay rakkam yi yal na seen taxawaay yàgg yal na yàlla may leen gudd fan gu ànd ak wér ak wér jërë ngeen jëf gudd na nag mais. sama xol sedd rek macha Aana ñoo ngi koy gërëm di ko sant taxawaayam ci mbir mi ca depuis Nimjaat ba léegi fa tabaarakallah amul dara ci manqué yéen nag waa Tëngéej jërë ngeen jëf téeméeri yoon ndax sagal ngeen Cheikh Aana sagal ngeen ñun ñëpp sagal ngeen xalifa bi ñoo ngi leen di sant di leen gërëm di gërëm étape bi fi ñu jaar yëpp ci Sénégal teraanga bin fa gis ak teertu ak teral ak addiya ak gunge xam naa ni moom ñoom ñëpp li lu ne def nañ ko waaye xam naa ni moom euh, tëngéej dana leen raw ndax tëngéej tëngéeju Cheikh Anta Diagne la waaye du tëngéej rek ndax cees Thièsu Cheikh Anta Diagne la euh, mbuur mbuuru Cheikh Anta Diagne la ndar ndaru Cheikh Anta ndax li muy ne li mu nekk dafa dëgg ci moom ñi ànd xalifa bi ñëpp li ñu nekk dafa dëgg ci ñoom ñu ànd sunu ki nga xam ni kii mooy sunu cheikh na Saad Bou mu cheikh Saad bu doom cheikh Ahmed Takhiyullah doomu cheikh Khalifa doomu cheikh na cheikh Saad Bou ki nga xam ni kii moonu uuf ñun ñëpp jàppee ñu ay doomam jàppee ñu ay sëtam jàppee ñu ay jarbaatam ñu ànd ak moom muy wax mu ni waxtaanal di nu déglu di nu xelal di nu ñaanal yan na yàlla guddal fanam yan na dunduwaat yeneen téeméeri at ndax soxla nañ ko lool ak mag ñi mu àndal ñëpp ak xale yeeg ndaw yi jërëjëf salaamaaleykum guleet bi xayma mosu fee taxaw ñu ngi sant yàlla sant yonent bi sallallahu alayhi wa di sant cheikh na cheikh Saad mi waral lii di sële di sant cheikh Taqilula di sële di sant Serif at xaana ay dara lii moom lii moom macha allah fa tabarkàlla yàlla nañ koy def ay déwéni déwéni déwéni déwén yu bare présidente eggaleer ñu ngi leen di nuyu di leen ziar ñooy fédération internationale des femmes musulmanes de la fondation Cheikhna Cheikh Saad Bou président fondateur bi Cheikh ay dara donc euh, ba tey ñi ngi ànd ak euh, xalif bi jëli nañ ko ba Rosso Sénégal yóbbu ko dibi ànd ak moom dem Ndar jóge Ndar ñu fekk ko Ngumba Ngéwul jóge fa fekk ko Thiès fekk ko Diourbel donc vraiment boo ba tey ñu ko ànd ak moom dafa seen ko ànd ak moom ba kii jeex ñuy sant rek nag di gërëm kontaan nañ lool di gërëm bu baax porte parole bi se Cheikh Atkhana Aidara bi nga xam ne fii la dëkk Tëngéej fii mooy fiefam kon buñ fi teeroo ni ñun dañ ciy kontaan ndax mooy sunu sëriñ mooy sunu sang mooy sunu wasila waaw sant nañ leen gërëm nañ leen